Mais, nous nous ñoo ne nous ñu préparé des textes et des di wax des ci ak télé yi di wax exemple muy nga télé la devant l'opinion internationale en 2012 nous avons fait des di Sénégalais ba pour que contrer contre candidature nous Maître Wade xamoon politiciens wante droit à un troisième mandat Sénégalais comprendre pour déstabiliser notre pays Mais wax devant l'opinion nationale et internationale sénégalais yi nga xam ñoo ak sénégalais que le mouvement des étudiants républicains nga Abdoulaye Diagne pour que li nga ci deuxième quinquennat Macky des étudiants des pare nañ ci te lépp lu leen jaral jaral nañu ko sous la houlette de notre coordonnateur loolu nag mu nekk mbir moo xamante ne si mënuñu koo def te tànn loxo ñëpp ñi nga xamante ne si ñoom ñooy liggéey autour du ñëpp ñi nga xamante ne si ñoo ñoo jàppale président Macky Sall ñëpp ñi nga xamante ne si tey ñoo gëm ni tey bu ñu bëggee construire am réew doole moom suñu ay nit ñoo xamante ne si ñu gëm li ñuy def la nit ñoo xamante ne si ëllëg ñuy toog nag ci kaw loolu ñun ne si gëm nañ ñi nit ñu dëkku ñu ànd ak président Macky Sall mu sut ay ndaw ci ñu fexe def lu tout ba woon Sénégalais yi loolu moom mooy yoon bu baax bi te ci yoon woo ci la ñuy beneen bi ñu lancer un appel képp ku nga xamante ne si étudiant bul mus a